Euh, lu ni mel pour waxtaanee yoonu Sénégal li tax mooy souvent dañuy jël yoon di ko sayute naan yoon ni muy doxalee du yoon walla la yoon def baaxul te ki initier loolu yoon dafa moom jàpp na ni yoon sonaloon na ko comme ni mu sonalee yeneen i doomu réewum senegal lan lañu laaj ci euh, plateforme bi mooy sénégalais bi joxe xalaatam. waaye tamit muy laaj sénégalais bi joxe expérience am ndax am na ñu bari ñoo xamee ni am nañu expérience mu néew mu bari ci seen jëflante ak yoon ci lu mën a doon mais li tax mu am importance mooy ñi nekk ci biir yoon di ci yëngu muy euh, li ñu wooyee euh, les les acteurs de la justice ñoom seen bopp dinañ ci gis seen bopp parce que dina mën a permettre ñu gën a assoir seen indépendance gën a wane ni ñun de. Euh, explication war nañ ko indi bu fekkee ni par exemple dañoo ñëw ne dañoo condamné diw ci nangam ak nangam loo xamee ne am na wala procureur ndax souvent détail débat la boo xamee ni depuis belle lurette ñu ngi koy amal mooy nii procureur dooleem dafa ëpp moom day xëy rek euh, jàpp diw dem leen jàppal jàppal ma diw euh, ci ñenn ñi jàpp ni ci mbirum politique la wala leneen kooku bu ñëwee daanaka même juge bu waxee. kàddu procureur bu moom mooy bi bi ñuy bi am solo bu juge nee diw nañ ko génne ci kaso bi procureur bu nee duñ ko génne dañuy dañuy dakkal lépp ak yu ni mel yooyu yëpp nag bu ko sénégalais yi mënee euh, jooyanti am fu ñu ko mën a jooyante c'est une bonne chose ba pare euh, leneen li ci fees li ci fës mooy ni il ne s'agira pas seulement de parler de la justice ndax euh, nu lii bi ñu dénk wàllu communication di porte-parole ak communication bu président xamle na ni du yam ci justice dinañ ko yaatal ci yeneen i euh, jum banqaas yi nga xamee ni soxna nañu ko lépp pour jëm ci lu ñuy woowee peut-être euh, bés bi nga xamee ni dialogue national lay doon ñëpp war a waxtaane secteur bu ne peut-être secteur bi nekk na secteur bu bu bu ay mbiram jàmp lool lu bari fës ci secteur bi ñu am nuñu leen xawee bàkkee trop muy wàllug justice naan ni euh, justice bu injuste la wala justice au ordres naan justice bi euh, dañ leen di euh, ger ak yu ni mel ay nit di ko wax faw ñu seet nuñ koy joyante pour que ñoom seen bopp ñu mën a seetal seen bopp parce que justice ci lépp loo gis la preuve tey ñu ngi fan yii yëpp ñu ngi naan Euh, mbirum Bah ak Imam ndaw ah dañ ko politiser euh, dafa am euh, ñu ci teg seen loxo ndax mbirum politique la mais bu doon mbirum politique ci li ma jàpp duñ leen àtte flagrant délit ginnaaw suba lundi am na ñu ñu fi jàppoon ci yay jamono mais taxawuñu ci kanamu àttekat lu yàgg président de la république Bassirou Diomaye Faye est-ce que taxawal nañ ko ci yóbbu nañ ko flagrant délit yaakaaruma ko de gisu gisum fàttalikuwuma ko bokk mën naa juum de waaye fàttalikuwuma ko Ousmane Sonko ñaata yoon lañ ko vaillé vient lo yóbbuwuñu ko flagrant délit am na ay nit ñu fi jàppoon ci ay jamono nee leen ay insulteur ngeen wala da ngeen am loo leen wax ci président Macky Sall lu ma dul nangu ci président bu mën a doon mais am na ñu ñu si jàpp demuñu flagrant délit mais lii day wane ni y eu un pas quand même je pense assez positif ci. diggante bi ñu leen jàppee léegi yaakaar naa dimanche la xaw ma altine lundi jàpp mardi lundi bi ci topp maanaam kon beneen audience bi ci topp ci flagrant li ñu ne leen ñëw leen ngeen taxaw défendre seen bopp ànd ak seen i seen i avocat bu baaxee ngeen génn bu dee seen défense am na lu ci lënt ñu teewaat leen wala leneen ak yeneen ça c'est déjà une bonne chose c'est c'est un signal bu yoon di wane ni ñun dañoo bëgg baral jéego yi pour ñun suñu bopp ñu mën a am fu ñu teg te wekk ñu tamit ñun waa yoon te ñun ñii nga xam ne ñun ñooy ay citoyens du manière générale ñun ñoo war a jox gëdd yoon justice ak acteur justice ñun ñoo leen war a jox gëdd jox leen doole bi ñu war a am donte parce que texte yi mu ngi fi bu dee ci texte la ñuy sukkandiku dañuy am doole bi ñu war a am mais wekk bi mooy ñoom seen bopp ñiy di acteur de la justice muy magistrat yi muy ku mën a doon. def loo xamee ni bu ëllëgee kenn ne justice au euh, justice aux ordres wala justice politique wala justice boo xamee ni euh, dañuy def euh, yaama neex ak yu ni mel et je pense donc que plateforme bi niñ ko niñ ko yëgatee baax na. on parle de plateforme boobu. ñuy waajal journée nationale dialogue jëm